ci en tout cas euh, bépp li nga xam ne moom mooy rek ab kilifa. képp responsable boo xam ne dañuy dénk ay nombal tànk. bu mhm. fekkee ne maanaam euh, li nga xam ne dafa xew. en tout cas euh, dafa dafa laale ak yow département bi nga xam ne moom ngay gérer. Mhm. li mu def mooy yoon nga génn def li nga xam ne ab communication la. en tout mhm. cas wax comme ni mu ki kii kii di Jean Baptiste Tine. nga xam ne ministre bi ñu dénk wàllum biir réew mi ak lépp loo xam ne rek kaaraange la kon sécurité publique. na wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs politiques yi. fàttali leen nag euh, li nga xam ne moom mooy euh, képp koo xam ne rek kon euh, en tout cas jéggi nga ay charte ak loo xam ne daal teg nañ ko loi Sénégal teg na ko code pénal teg na ko jëm ci campagne électorale kon mu leen di artu xam leen leen na kon en tout cas lépp loo xam ne ñoom war nañ ko si jël comme ay responsabilité dinañ ko jël peut-être sax xam naa ñàkkul loolu tax xanaa ñi nga xam ne ñooy ay garde mhm. yu yu yu sàmm sa kàddu ñu teg leen loxo gannaaw bi ñu arrêté cortège bi ñu ne côté Thiès côté alukañ bi teg nañ leen a nga xam ne moom mooy ay responsabilité am ñu amal xam ne campagne de mhm. doon campagne boo xam ne dañ koy amal ci li nga xam ne kon moom mooy moom mooy moom mooy jàmm mhm. euh, loolu lañ doon xaar si nga xam ne euh, moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy bile ministre te ñàkkul nag ñoom mhm. def yoo xam ne mën nañ ko ñàkk a fësal maanaam li nga xam ne moom mooy seen campagne moom euh, du moins seen ay investigation mhm. di liggéey ci suuf mhm. euh, jàpp boobu mën na bokk na si ak yeneen yoo xam ne sax du ñàkk ñu ngi koy def mais nekkul nag lépp la ñuy wax mhm. maanaam euh, ñi rek euh, lépp loo xam ne war na ci rek incha allah dinañ ko def ba daal képp koo xam ne kon yaa ngi wax mbirum yaa ngi laale yaa ngi dem ci loo xam ne day jëm violence soxla Fatima ñu teg la loxo te teg la tam daan bi nga xam ne moom moo war wax nañu it bépp caravane nañ leen di prévenir à l'avance ci li nga xam ne moom mooy seen caravane yi ak itinéraire yi nga xam ne dañ koy jël mm. loolu bu amee kon dina tax ba en tout cas dinañ def ay évaluation dinañ jël les éventualités dinañ ah. jël les devant ah, ba xool nan la ñuy sécuriser mhm. li nga xam ne kon moom mooy fi ñuy jaar yooyu ndax loolu da ci am solo mais bu mhm. fekkee nga tëb rek mhm. dem kii dem accrochage yenn saa yi accrochage ay kii am surtout yàlla bu mu télescopage am li nga côté boobu jege na ak école tamit ñu koy soowaale xale yu dem jàngi mu ngoog mbiri am kon it bokk na ci mesure yi mu leen koo xam ne en tout cas di euh, jël sa en tout cas dinañ l' avance. comme ça ñoom ñu mën a préparer wu à euh, pour parer à toute éventualité euh, de violence wala d'insécurité boo xam ne kon dina am ci li nga xam ne moom mooy. Euh, c'est important c'est important mesures yi nga xamante ni euh, njiitu ki nga xamante ni moom lañ jox euh, kaaraange réew mi c'est important mu génn wax donc nañ ci gën a bàyyi xel donc dañ.